Bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa saxbihi wa man waalaa jaa fi saxiixi muslimin an abi hurayrata anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal atadruuna mal xiiba qaalu allahu wa rasuluhu aclam qaal dikruka axaaka bima yakrah qiila afarayta in kaana fi axi ma aqul qaala in kaana fihi ma taqulu faqad ixtabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu ñëw na ci saxiixul imaami muslim mu jëlee ci abu hurayrata radiallahu anhu mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax ni laaj saxaaba yi ne leen ndax xam ngeen lan mooy jaww ñu daal di koy wax ni ko yàlla ak yonent bi rek ko xam ndax ñoom daawuñu jiitu yàlla ak yonent bi ci tontu ginnaaw ba ci alquran wàccee wax leen ko ñu bu leen jiitu yàlla ak yonent bi ba leen ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam laajee ñu daal di wax ni yàlla ak yonent bi rek ko xam yonent bi wax ni jëw mooy tudd gi ngay tudd sa mbokkum jullit ci loo xamante ni neexu ko saxaaba yi daal di koy wax ni ko waa bu fekkee ñun li ñuy wax ci suñu mbokk dafa nekk ci moom yonent bi wax leen ni leen bu fekkee li ngeen di wax ci seen mbokk dëgg la lu nekk ci moom la su boobaa jëw ngeen ko ndax nekku fi te la ngeen di wax baaxul waaye bu fekkee la ngeen di wax nag nekkul ci moom su boobaa nag sosal ngeen ko duural ngeen ko te mooy wax ngeen lu dul dëgg te su boobaa dafay gën a garaaw kon xadis boobu dañuy gis ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ciy jàngale ni jëw mooy li ngay wax ci sa mbokkum jullit te baaxul bu ko déggoon mu metti ko te ba nga koy wax tamit ci ginnaawam nga ko wax bu fekkee nag la ngay wax dëgg la waaye nekku fi jëw la bu fekkee nag la ngay wax nag du dëgg te nekku fi su boobaa jëw gu ànd ak sos la jëw gu ànd ak duur la su boobaa nag dafay gën a garaaw moo tax définition boobu la yonent bi joxe ci jëw te da ngay gis ni jullit ñu bari xameewuñ ko noonu ndax da ngay toog ak nit muy wax ci nit nga ne ko sawaay li ngay wax nii jëw la de tenka bàyyi ba wattu sax daf la ciy mere te lam la ciy tontu mooy li may wax ci moom dëgg la nit mos na ma ko wax ma ni ko la ngay wax nag ba mu nekkee dëgg waaye new fi ca la nekkee jëw waaye li ngay wax bu dul woon dëgg nag su boobaa danga koy sosal duural ko su boobaa dafay gën a garaaw loolu rek danga ciy déggee ni ñu bari xamuñ la mooy jëw waaw ndax islam ni mu gisee mooy nit ki bu fi nekkul rek ne nit ñi téye seen làmmiñ ci deram loolu la islam gëm ndax dafa aar dafa ñoŋal deru jullit looy wax sa mbokk demal ba ci moom nga wax ko bu dee danga ko koy laaye biir conseiller ko ko nga wax ko su ko defee mu jariñoo ko mu jariñ ko su boobaa sax moom daf lay sant gërëm la xam ni yow lu baax nga ko bëggal waaye su fekkee ci ginnaawam ngay wax su ko déggee rek dalay mere mën na yàq sa digganteeg moom loolu nekk lu jar a bàyyi xel jullit bu ne bàyyiwaat ko xel moo tax yonent bi noonu la xam lay jëw te jëw mën naa dal ku ne ku baax ku ne sax mën na la dal ndax lu yomb la looloo tax ñoŋal làmmiñ yi aar leen nekk lu am solo ndax mos naa dal suy suñ yaay Aïcha te ku ko gën amul soxna yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam dafa rek waxoon baat boo xamante ni jàpp na ni du dara daf ni rek suñu yaayu Safiya wu jëm la nii dafa gàtt yonent bi ni ko wax nga baat boo xamante ni law musijat bi ma il bahri la masajatu wax nga baat boo xamante ni buñ ko sotti woon ci ndoxu géej sax mu mu tilimal ko ñuulal ko te dafa gàtt rek la wax de te ñun boo xoolee li ñuy wax ci ginnaaw nit ñi moo gën a garaaw dafa gàtt yeneen sikk yu gën a garaaw la ñuy wax wala nit ku mooy mooy yàlla bu garaaw nga nekk ca di wax donte ni dëgg la waaye ku ci ne say bàkkaar say bàkkaaru bopp la yàlla lijjanti loowu ko kenn moo tax ku mel ni qataada rahimahullah daf daan wax ni mbugalum bàmmeel ñett koy indi benn bi ci jëw lay jóge beneen bi ci tuur ndox maanaam nit ki dem ca wanag wa tuur ndox waroon bañ a yàkkamti defar boppam ba bu fa jógee benn toq du génn ci moom waaye mu yàkkamti daal di dem yooyu toq ci yéeram su ko defee jaamu yàlla gu mu jaamu yàlla du baax loolu tamit day waran mbugalum bàmmeel kon jëw ak ci gaanuwaay te mooy tuur ndox ak bu ñetteel bi mooy rambaaj rambaaj it nekk lu garaaw te boo xoolee it mooy toxal ay wax rek nit wax la dara lu baaxul ci nit nga daal dem nettali ko nettali ko kam ko waxal su ko defee kooku mere ko seen diggante yàqu rambaajit luy waral mbugalu bàmmeel la moo tax Kaab radiyallahu anhu daan wax ni wattu leen rambaaj ndax borom du noppalu ci mbugalum bàmmeel moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam benn saxaaba daf ko laajoon Muaz la Muaz ibnu Jabal ni ko ndax ñun li ñuy wax dañ ñu koy jàppe yonente bi ni ko xanaa xamuloo ni jahannama ëllëg yowmal qiyaama la fay dëpp kanamu nit ña ca biir safaras jahannam mooy lu ñu wax seen làmmiñ jural leen ko rek seen làmmiña leen koy yóbbee loolu rek di wane ni làmmiñ lu jara moytu la looy wax lu ne nga war ko seet bu fekkee ci deru nit la jëm ak ci bakkaaru jàmbur noppi ca moom moo gën fu ñu koy waxee sax nga jóg dem moom moo gën ndax kiy déglu jëw moo koy jëw ñooyam ñooy bokk bàkkaar bi moo tax xasanul basri rahmatullahi alayhi daf daan wax ni jëw ñett la ñetti xeet la te yépp boo ko seetee ci alquran di nga ko ci gis xam nga xasanul basri moom xakim la woon ku déggoon la nee na dafa am lu ñuy tuddee al xiiba ak al ifk ak al buhtaan nee na al xiiba mooy nga wax ci sa mbokkum jullit lu nekkul ci moom boobaa moom te nekku fa wala boog dama juum alxiibatu nee na jëw mooy nga wax ci sa mbokk loo xamante ni mu nga ca moom waaye nag daf fee nekkul al ifk nag mooy nga wax loo xamante ni danga ko dégg ci moom su ko defee yow nga taawi ko gën kaa yaatal jox ko keneen keneen jox ko keneen mu gën a yaatu al buxtaan nag mooy nga wax lu nekkul ci moom lu nekkul ci sa mbokkum jullit maanaam nga duural ko sosol ko te yooyu yëpp benn baaxu ci moo tax li Saalix Muhammad ibnu Saalix al Uthaymin daan wax ni na nga wattu sa làmmiñ téye ko ndax loo wax rek bind nañ ko te su ëllëgee yowmal qiyaama la nga waxoon yépp ñu jóoral la ko sa kanam moo tax seet ci li ngay wax ak sax néewal wax ci lu amul njariñ moo gën moo tax Sufyaan ibnu Uyayna rahimahullah daf daan wax ni jëw moo gën a doy waar sax moo gën a tar bor boo xamante nit ki daf ko amee fayu ko ba faatoog moom ndax bu dee bor xam nga nit ki mën naa faatu ay mbokkam yërëm ko fayal ko ko waaye bu dee jëw nag ka nga jëw rek la mën a baal te mën naa am nga njëkk kaa faatu wala mu njëkk laa faatu su boobaa fan nga koy baalu jee moo tax jëw gravité bi kenn xamul fu mu yem. moo tax wax ji lu am solo la daf ni moytul di woor di julli guddi di jàng alquran di tudd yàlla di saraxe di fajal nit ñi seeni aajo di sonn ci xeetu jaamu yàlla yépp la nga ca amee sa tuyaaba. ëllëg yowmal qiyaama benn nit ñëw jël tuyaaba yooyu yëpp te su amu ci benn coono moom su ko defee yow nga toog loolu lu koy indi mooy jëw wax ji it wax ju am solo la mu ni yowmul xisaab sa takunu murgaman ala i'taai xasanatika li shaxsin karihtahu fa aghdabtahu mu ni yowmal qiyaama di nga dinañ la forcer nga jël say tuyaaba daal di koy jox nit koo xamante ni moom nga gënoon a bañ lu tax lu ko waral mooy danga ko doon jëw nit koo xamante ni tuyaaba yaa ngi koy jox sonn ci ma nga tëddoon këram di nelaw ñëw jël sa tuyaaba yépp lu tax te nit kooku moom nga gënoon bañ moom nga jàppe woon noonu lu tax mooy danga ko doon jëw te yooyu yëpp dafay indi li ñuy wax afaatul lisaan te mooy ayibu làmmiñ làmmiñ mooy indi jëw mooy indi wax lu dul dëgg mooy indi saaga mooy indi rëbb nit mooy indi ràmbaaj loolu di wane ni nit ki war na bàyyi xelam bu baax ci ayibu làmmiñ moo tax xasanul basri nit dafa mës a ñëw ni ko diw de ma ngi lay jëw xasanul basri wax ni kontaan naa ci tuyaaba boo xamante ni jëfuma ko sonnuma ca ngistal dugg ca yéem jëf dugg ca te yooyu mooy yàq jëf kon kay loolu day wane ni tuyaaba jooju noonu boo demee yomal xam danga ko fa fekk te yow sax jëfuloo ko lu koy waral nit a la jëw ñu jël ay tuyaabam jox la moo tax wax ji it wax ju am solo la mu ni régime yépp a baax waaye régime yi ba ca gën régime mooy ñàkk a lekk wala ñàkk a naan ngir am wér wala wàññi sa poids mu ne régime yépp ba ca gën mooy bàyyi di lekk yàpp nit ñi ak di xuus ci seen der waaw ndax jëw noonu la ko yàlla melale ci alquran ni ñiy jëw dañoo mel ni kuy lekk seen yàpp mbokkum jullit te boo xoolee nit ki balaa muy wax ci deru mbokkam li gën mooy mu seet ay ayub boppam seet nu mu ko saafara moo gën ngay seet ak di critiquer say mbokk yu fi nekkul ndax wax ji dafay wax ni aktharu naasi naqdan aktharuhum naqson ñi ëpp lu ñuy critiquer nit ñi ñoo ëpp ay wàññent ñoo ëpp vice ñoo ëpp ay sikk kon kay commencé ci sa sikku bopp ak sa visu bopp seet noo ko dindee moo gën ngay jéem a seet lu nekk ci nit ñi fab ne ko shaacir ba waxee woon poète ba fabda bi nafsika fanhaha an ghayyiha fa matantahat anha fa anta xakimu commencé ci sa ayibu bopp seet nooy dindee yow say sikku bopp boo demee ba say sikk jeex na su boobaa nga nekk ab xakim nekk ab sage wax ji it wax ju jara bàyyi xel la nee na bu fekkoon banque yi nekk ci àdduna da nga boo boo boo mosee jëw nit rek ñu retiré xaalis bu baree bari def ko ci compte ka nga jëw nee na nit ñi boo moytuwul danañu bàyyi jëw ngir rek bañ a ñàkk seeni alal léegi nag waxuma la ak nag tuyaaba ji nga xamante ni soo jëwee nit ñu jël ko jox ko ka ngay jëw te tuyaaba moo ëpp valeur gën ëpp solo fuuf alal loolu rek di wane ni saa yoo jëw yaa ngi jël say tuyaaba di ko joxe kon loolu nit war ko wattu bu baax ndax nit ki bu fekkoon bu jëwee ñu jëwee ñu jël alalam jox ko keneen su bàyyi boobaa dina bàyyi jëw moo tax lii yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ni abu daawud andi na ko ni képp koo xamante ni da nga tuumaal sa mbokkum jullit waxal sa mbokkum jullit loo xamante ni yàq deram moom moo tax ba ëllëgee yawmal xiyaam booy jéggi soraat yàlla dina la fa taxawloo ba la nga waxaloon sa mbokkum jullit yépp génn ci yow génn ba deñ moo tax yooyu yëpp ay artu la ngir nit ki seet bu baax ci lu muy dugal làmmiñam seet bu baax nu muy wattoo deru mbokkum jullitam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi al axyaar wa sallama tasliman kathira